mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew ni ngi leen di nuyuwaat bu baax te di leen siyaara di jiital ci siyaar bi ak nuyoo bi Cheikh mu Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom dolli ko yàggal lool te wéral ko waaye di siyaar baax tey ñaanal liggéeyaa ko ba di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenn Fall di ñaan suñu borom dolli ko yàggal lool te wéral ko waaye di siyaar mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek ci weeru koor gi durant weeru koor gi tey jii di tey jii di alxames tombeek la 14 Euh, ci ñaar ñetteelu fan weeru koor ñu ñëw fii nga xam ni tey mooy Paaleen fii ci kër Serigne Mortala Fall Serigne Mortala Fall wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall 1950 ba 54 di deuxième xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii nag ñu ñëw fi nag ci kër gi comme ñu ko baaxoo def ci mbooleem bunti kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp sëñ Mortala nekkoon koo xam ne jàmbaar yi eh, maam Cheikh Ibrahima Fall la woon waaye sëriñ bi moo ko yar eh, sëñ Mortala waaye tamit am na li ñuy tudd léegi ci jamono jii muy ak taalibe eh, sëriñ Mortala sëriñ Touba moo ko fàgguloon loolu nag moo waral tey jii ñu ñëw fii nag ci biir. ànd ak suñ mbokki caméraman yi ngir bëgg seen dugg ci biir leeral leen ni ñuy taxawee ndogo yi comme ñu ko baaxoo ci mboolem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 laa ilaaha illallah ilaaha illallah yi comme ni ngeen ko gisee rek ñoo ngi fii ci kër Cheikh mortala Talla euh, di ñaanal bu baax euh, ki nga xam ne moo ko fi toogal di Serigne Abdou Fall Rokhaya ak mboolem njabootu Serigne mortala Talla gépp gis ngeen waañ wi mi ngi nii waañ wi yànji lool euh, soxna yi ñoo ngi ci liggéey bi ñu taxaw ak Yandey Ndiaye Euh, année bu jot ñu ñëw di ko fi fekk euh, soxna si di ñu booleek moom ngir liggéey bi nga xaman ni ñoom ñoo ko jiite. yaa ndey kañ ngeen xëy si woon fii ak euh, nan ngeen programmé liggéey bi ba mu agsi fii tey rawatina weeru koor gi yëpp mel na ne dangeen ngeen di teel a jug defar li ngeen di defar laata ñu yóbbu ndogo yi fekk pare ngeen bañ man cee jot. waaw salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek teel a ñëw rek. mun xisee daal teel a ñëw fexe muy teel lool neex lool di sell lool ñu di ko jébbal sa ñëb du faa ñu ko yóbbu ko sa ñun tàqaar waaw nañ ko daan defee daa daaw jéeg at yéen ko daan defee rek noonu lañ ko defee waa benn noonu lañ ko tàmbalee noonu fas yéene yeggale waaw bu ngeen xëysee ban heure ngeen di xëy si ak lan ngeen di njëkk a def fii la ñuy ndékkee fii la ñuy ndékkee bu ñëwee xolli pomme de terre soble fajar fajar soble fajar pomme de terre waaw noonu daal la def wane ñëw sawar lool togg bu baax ñu yenu yóbbu bu yenoo yóbbu ñu ñibbi suñu kër toog ñu gaat ba suba ñu ñëwaat waaw eh, su ngeen ñëwee leen lu ci nekk da ngeen di fekk mu féete boor ba bu ngeen ñëwee rek dal ci waaw waaw lu nekk dañu féete mu boor ñu daale suñu yokk ak lu ñu fekk defar ba mu baax ni ko boroom bëggee rek lan ni leen koy def bu neexee yàlla ki gën li gën lañ koy jox mel na ne ñam wi eh, dana sell dana neex dana sell lool dana neex lool dana teel ndax yéen ci am yéene bu baax gone yi dañoo sawar lool te lu baax rek lañ bëgg nu mu baax rek lañ koy defee at mu jot noonu ko fas yéene taam ne ko fas yéene yeggal waaw. lan ngay euh, ñaax mbokki soxna yi nga àndal liggéey bi mel na ne weeru koor gi des na lu bari. des na lu bari waaye bu soobee yàlla ni ñu ko tàmbalee incha allah ni lay yeggi ndax dañ cee sawar te dañ cee am yéene baax waaw. waaw di leen sant di leen gërëm na di ñaanal taw tawféex ñaanal sëñ du faal bu baax ak i rakkam ak i magam yàgg fi loolu téewat ci barke ma sëñ Touba. ñaanal waa kër Baye Talla Ndaw ñëpp waa kër Baye Cheikh Ndaw sama gone yi nañ lool te baax nañ wax dëgg yàlla.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 ba léegi rek euh, sama bàjjen Ndiaye Fall moom Serigne Mortala moom lañ euh, toogal nii euh, mu bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite waañ bi waaye jiite soxna yi rek ànd ak ñoom it liggéey bi bàjjan super bi nag mel na ne am na taarix ci yoon wi boo ñu bëggoon a xamal tuuti rek ci cosaanu super bi lan moo ko waral. <laughs> ah cosaanu bi de moom danoo dikk fekk ko fi rek ah, na ko Cheikh Ibra daa defee rek ba am njabootam di ko di ko ni defee rek ñu di ko ñu cay roy rek waaw loolu daal la <laughs> waaw. mu mel ne fukki wax nañ ne fukki ci nettali fukki bool ak ñaar la Cheikh Ibra Fall daan ak super ba. super bi nag mel na ne à woon maanaam lu ñuy ber lu daan ber lay doon mel na ne fii dañ koo ber. dañ koo ber de noonee mu ko daa defee rek. Hmm. moom daal loolu ba tey jógu fi rek la fi nekkoon na fi ne hmm. waaw loolu daal jën soxna yi nga seqal liggéey bi euh, lan la kàddu yoon ngay jëmale ci ñoom. soxna yi de kii de sama rakk moom di doomi sëñ sa Sakour waaw <laughs> ñu ànd liggéey bi <laughs> ci àndin wu rafet nag di leen eh, liggéey bi nag moom luñ ci man ci lu baax rek ñu ngi koy def ñoom daal wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant rek di leen ñaanam ñu gën koo man rek man nag dama <laughs> mënta wax moom moo tax dama ciy barkeelu rek. bàjjen sëñ Abdou Fall Roqe jàmbaar la ci liggéey bu maam si waaw waaw jàmbaar la de. jàmbaar la lool de <laughs> ñu di ko sant nag di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci wér ak magam ak i rakkam ak taalibe ak bépp jullit yàlla na fi yàgg te wér barke maam Cheikh Ibra barke Cheikh Mor Sall yéen ñi nag sant nañ leen gërëm nañ leen jërëjëf. <laughs> kàddu ngay ci kàddu yi soxna si. ci kàddu ah kàddu yi soxna de moom ñun yoon wi daa baaxoo moom toppante la moom bu mag xasee wax rek moom waxaale na ñëpp xanaa li yen sant rek yéen waa Lamp Fall te xam ne ñëw ngeen seen kër fekk fi seenu njaboot waaw ndax lépp njabootu Cheikh Ibra te Cheikh Ibra leen ñor moo leen tax a jóg sant nag ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba tey doon toggaloo Cheikh Ibrahima Fall lii muy ganalee ganam gi waaw di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal sëñ am dim sëñ Modou Mbenda Fall mi fi nekkal Cheikh Ibra tam ak mboolem buntu këri Cheikh Ibrahima Fall yi di ñaan mu yàgg lool nag te sax di ñaanal nag sëñ du Fall mii moom sëñ Mor Talla ak njabootam gii mu nekkal nag rakkam yeeg taalibe yi ak jigéenam yi di leen ñaanal fan wu gudd wa ànd ak wér man nag sëñ Abdou Sakkoor ay sama waajur waaye nag ànd nañoo man ànd bu rafet ndax sëñ Abdou Sakkoor daa taaw lu jox ko sëñ Abdou Assis moom sëñ Mor Talla Fall mu yar ma ca biir kër ga ba ma wëlbati ku nekkaat ca kër ga ba nagani sii te loola nag ñoom ñi yàquñu dara na sëñ Abdou Sakkoor àndewoon sëñ Mor Talla daal muy magam muy rakkam noonu lañ ma jàppee nag waaw moom njabootu sëñ Mor Talla ak góor ak jigéen mag ak ndaw man aw ma seen pay xanaa di leen sant rek tey ñaan yàlla fan wu gudd ànd ak wér nu yàgg koo taxawe di ñaanal nag taalibe yi ndax taalibe yi kat ñoo fi nekk nag waaw fi nekk taalibe yee ko fi indi su doon nun doo nga dun dem fenn dun man leen waaw ni ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla guddal seenu fan wéral seeni jër yokk seen war ak seen xéewal ba li ñu yéene ci yoonu sëñ Touba bi ak Cheikh lépp ñu matale ko mbaa ñu def ci lu baree bari barke sëñ Touba ak Cheikh Ibra te rek euh, boobu ba léegi ñoo ngi ci biir kër Serigne Mortala ñi ngi fii ci biir fi nga xamante ni fii la ñuy euh, waajalee ndogo yi ngir fas yéene yóbbu ci euh, kër Serigne bi ñu toog ak Serigne sëñ Bakke Ndiaye moom Serigne Baara Ndiaye ñu yàgg ku fee fekk at mu jot mu yor kàddu Serigne bi it ñu bëggoon rek tey mu dikkalaat ñu rek ci Eh, ndog yi taarixu ndog yi nga xam ne eh, Serigne Mortala daal na ko taxawu eh, mu jóge fi Serigne Assis Fall di ko taxawu di ñaan suñu borom dolli ay ngërëmam waaye ki nga xam ne tey moo fi toog jotaay bi Serigne Mortala di Serigne Abdou Fall Rokhaya di ñaan suñu borom dolli ko fee yàgg loolu te wéral ko Serigne bi ñu ngi lay siyaar bu baax comme nañ ko defee woon daaw rek fekkewaat ko ren. fas yéene barkeeluwaat rek ci kàddu yoo xam ne day jëm ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abdoulaye Ndaw yéen waa Lamp FM ñu ngi leen di nuyu lu gën a bari te di leen sant di leen gërëm di leen xam ne ne fii ngeen ñëw tey di ëttub kër sëñ Mortalla te ngeen fee ñëw waaye kàddu yi mën naa bañ a bari waaye na su fekkee da ngaa am loo bëgg ku la ko leeral loo ci laaj lañ ci xam te nañu la ko leeral waaye ñoo ngi leen di dalal jàmm bu baax di leen xamal ni it bi ngeen demee ci kër xalif général de Baye Fall sëriñ Amdi Nuur Mbenda yàlla na sa borom dolli ak wéram te yàggal ko fi ndax moo fi maam Cheikh Ibra Fall euh, kër ci des yëpp ay car lañu waaye date bi mooy ki fi nekkal Cheikh Ibra kër maam Cheikh nag moo yaatu yaatu goo xam ni dem na ba àgg foo xam ni lépp lu ñuy def maam Cheikh Ibra Fall lañ koy defal waaye lépp nag ki fi nekkal Cheikh Ibra Fall di seen kilifa moom lañ koy liggéeyal sëriñ bi loolu mooy li nga xam ni mooy li ci nekk euh, li nga may laaj daal mooy que sëñ Mortalla moom li ñuy def nag di wàllu ndogu yi yàgg na lool ndax li ko war moo di ku baax di Seexul Xadim yàlla na saa borom taaf ñi ci barkeem te it euh, lépp lu ñuy liggéey di ci sàkk ngërëmam maam Cheikh Ibra Fall daa mel ne bi ko sëriñ Touba di digal loo ko sëriñ Mortalla loolu duggoon na am noppam kon bi nga xamee ni maam Cheikh Ibra Fall bàyyi na fi Cheikh Moustapha Fall magam di magi sëñ Mortalla nekk fi di ab sëriñam sëriñ Moustapha Fall dadaa daa togg ay ndogu sëriñ Mortalla di togg ay ndogu waaye booba it sëriñ di jubluwu ci woon lenn du lëggéeyal magam sëriñam Cheikh mu Fall booba Cheikh Moustapha Fall mi ngi nekk njaarim di togg ay ndogu sëriñ Mortalla nekk Xuru Mbàkke di togg ay ndogu waaye lépp nag mu Moustapha Fall la ko doon defal ak dégg ndigal li nga xam ni sëriñ bu mag bi digal na ko Cheikh Ibra te loola fas na yéene ba mu topp tàbbee am noppam rek mu fas yéene ba mu noppee gis maam Cheikh ba mu nekk ci loola waaye teewul nag dafa toppante gannaaw magam mu Moustapha Fall ak sëriñam mu Cheikh Modou Moustapha Mbacké liggéey bi benn sëriñ moo taala moom ndog yi yàgg na fi taal gii ñu koy taalit euh, sëriñ Abdou Assis ci la jëkk soq koo ci doomi sëñ Mortalla yi waaye li waral loolu mooy bi sëriñ Mortalla bàyyi ko seen sëriñ seen baay sëriñ Aliou Fall Mbawor dafee nekkoon di seen kilifa sëriñ Aliou yor liggéey bi jox leen ndigal lépp lu ñuy def sëriñ Sidi ñu fi jëkk a nekk nekkal fi seex sëriñ Mortalla moo fi nekkoon boobu ba noppee gis sëriñ Sidi it noppee gis sëriñ Aliou Fall la ndog yi kër ndog yi kër sëñ Mortalla sëñ Abdou Ciss di ko door a taal loolu mooy li ci nekk waaye bi fi sëñ Mor Talla jógee sëñ ali Fall Mbawar noo fi nekk sëñ Abdou Ciss itam dafa amoon mag di kilifaam di sëriñ Sidi Fall mu nekkoon ci gannaawam ñu ànd wuj ji seen sëriñ seen baay sëriñ Aliou Fall Mbawar waaye ndog yi kat sëriñ Mor Talla moo ko jëkk a sos loola ci la njabootu sëñ Mor Talla nekk lool daal mooy li nga xam ne mën na la mën naa laa xamal ne la ndog yi ñoom bëgg a taal taxu ñuy taal ndigal lu wér la loo xam ne lu bàyyi ko ci sëñ Mor Talla la loolu mooy la ci nekk sëriñ bi ñu gis ne mbooleem njaboot gi aju ci sëriñ Mor Talla euh, tey jii ñu ñu ñu topp sëriñ euh, Abdou Fall Roqeya kenn ku ci nekk tey am na fi cin loolu nan nga ñu ko mën a leerale waaw moom de loolu itam moo di euh, sëriñ Abdou Roqeya ki topp ci moom mooy sëriñ Daam Abdourahman yàlla na samparam dolli ak wéram mu yàgg a topp ci gannaaw kilifaam sëriñ Abdou Roqeya sëriñ sëriñ Abdou ngi koy sont bu baax di ko gërëm bu baax mooy jëwriñam mooy léppam bi nga xamee ni sëriñ daam nekk na fi feggoon na ak rakkam sëriñ Abdou Sakour Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Chini bu loolu jàllee itam sëriñ Badara Fall mu sëriñ Talla Yacine moom it mi ngi fi ci gannaaw sëriñ Abdou Roqee boo gisee sëriñ Bachirou sëriñ euh, Badara nag ñu tudd ko ak taxawaayam boobu mooy waajuram sëriñ euh, waajuram sëriñ euh, Talla Yacine day doomi sëriñ Bachirou Fall mu mag ma te sëriñ Bachirou Fall mu mag ma ak sëriñ Mortala nekkoon benn ànd googee ñu àndoon ni moom la njabootu sëñ Bachirou Fall ànde ak njabootu sëñ Mortala bi nga xamee ni sëriñ Badda Taaliya si nekk na fi taxawaay taxawaay euh, sëñ Bachirou Fall mu mag ma loola ñoo ngi koy sant te di ko rafetlu lool di ñaan sa borom yàggal ko bu baax a baax waaye sëti kër sëñ Mortala nag sëriñ Cheikh Fall Xaadim moo ci mag euh, mboolem ay rakkam sëriñ Lamp Fall mu sëriñ Bachirou alxuraan moom sëriñ Bachirou Xadim Mbodj eh, ak sëriñ Bada Fall mu sëriñ Abdou Aziz Fall ñoom ñëpp ñu ngi ci gannaaw suñ Seex Fall Xaadim di déglu seen ndigal di fas yéene lépp luy màggal seen seen kër maam di sëriñ Motaala ñu nekk ci loola. ñun ñii di ay taalib yi nekkal fi nekkal fi suñu waajur yi di sëriñ Baara Ndiaye sëñ Baara moom maam Cheikh Ibra Fall moo ko boole woon ak sëñ Motaala. boole googee mu ko boole woon ak sëñ mootaala nag ni la njabootu suñ mootaala ni la njabootu suñ baar fas yéene ànd ak njabootu suñ suñ mootaala ñooy suñuy ñooy suñ bunt ci kër maam ci Cheikh Fall di leen ñaanal ñu bokk fu yàgg bu baax ñu day li nga xam moom lañu ñu nekk euh, muy ak taalibe da nga xam ne ku baax ki moo ko fàggaloo sëriñ bi loolee nga xam ne xam nañ ni sëñ mootaala ngi ci nekkoon euh, sëñ baar nekk ci gannaawam di taalibeem di léppam njabootu sëñ baar loolu lañu fas yéene def bu loolu jàllee it sëriñ Assane Ndaw mi nga xam ne moo fi nekk ci kër gi nekkal fi waa kër Baay Babacar Ndaw it loolu ñoo ngi koy sant bu baax te di ko gërëm baax ak magi taalibe yi fi nekk ñëpp ñu sëriñ baa ngi leen di sant te di leen gërëm di fas yéene nag liggéey bii moom ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahim di ñaan mu àgg ci alhamdulilah rabbil alamin ci daraje maam Cheikh Fall mu tedd ma daraje Cheikh Mor Talla. sëriñ bi ñu gis euh, seen ànd ak waa kër sëriñ Aliou mu mel ne loolu ci soxna Fatou Diop Seer la. waaw loolu li ma la wax léegi rek mooy li ci wax njëlbéen gi bi biñ noppee gis sëñ Mortalla sëriñ Aliou Fall Mbawor moo fi nekk sëriñ Aliou Fall Mbawor moo doon rek sëñ Mortalla ñu ànd déggoo sëriñ Mortalla lépp lu mas bëgg sëriñ Aliou Fall Mbawor defal na ko ñoo bokk soxna Fat Diop Sayer bokk googee ñu bokk soxna Fat Diop Sayer nag moo war kër sëñ Mortalla ak kër soxna ak kër sëñ Aliou Fall Mbawor ñu ànd seen ànd bi bokk soxna sa bokk maam Cheikh Fall bokk soxna Seynabou Diop ànd bi moom yàgg na lool tey rafet na te loolu dañuy ñaan waxtu wu ne mu gën di jëm kanam bu baax a baax rek sëñ Cheikh Fall Mbawar mu fi nekk tey nekkal fi nekkal fi sëriñ Aliou Fall ab liggéeyam waxtu àggee balaa bala ñoo def lenn da koy ba ci sëñ Abdou Rokhaya ñu ànd yóbbu liggéey bi jébbale ko benn liggéey waaw. Euh, lan nga ñuy baaxee tuuti ci euh, kilifa gi nga xam ne moo ne ci biir di sëriñ Abdou mel na ne bi mu jotee ci liggéey bi sëñ Mortala bi da ko yokk. waaw loolu moom adduna ci boppam moo baaxoo ak yokk euh, ndax liggéey bi bi nga xamee ni ñu ngi koy tàmbali ci kër maam Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Moustapha Fall ci fukki dab ak ñaaral tàmbalee woon loola it ba ko Cheikh Moustapha Fall di def sëriñ Mortalla di ko def ñuy dem bam ak si ci sët yi tey jii euh, ak gon ci doomi Cheikh Ibra yi fii nekkoon nga xam ni bi bi nga xamee noppi ñoo gis Cheikh Moustapha Fall sëriñ Mortalla nekk fi loola dafa gën a yokk bi fi suñ suñ mortaale jóge sëriñ Ablaye Fall Ndar yor ko loola dafa gën a yokk bi mu fi jógee sërif Assane Fall yor ko loola dafa a yokk bi bi mu fi jógee sëriñ Abdou Sakkour yor ko loola daa gën a jëm kanam bi mu demee nag ba dikk ci sëti Cheikh Ibra Fall yi daa mel ne la seen waajur ya doon liggéey dañ leen a wax ni leen ñooñu kat dañ doon tàmbali waaye liggéey bi fu mu war a àggal da ngeen ko fa àggale te ñoom nag da bëgguñu lenn lu du ngërëmal seen waajur yu baax ya ak ngërëmal seen maam ju baax ja loolu it mooy la ci nekk sëñ Abdou Rokhaya mii nag fokk suñu Abdou Assis bàyyee woon saay boobu ba may la ba mu koy fab yokkaat na ne lu tool ne la sëñ Abdou Assis doon def mu yokkaat ko ci loolu itam nag baaxu sëriñ bi rek moo waral loolu kon sëriñ Abdou Rokhaya dañ koy ñaanal sama borom yàggal ko fi bu baax a baax mook taalibe yi ak rakk yi ak doom yi loolu daal mooy li nga xam ne mooy li ci nekk waaw waaye bokk ci sët yi ngeen àndandoo liggéey bi ak sëriñ bi lan nga yëkk kàddu yoom day jëm ci mbooleem sëti Cheikh Mourtala Fall yi nga xam ne mel na ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi yéen ko ànd. alhamdulilah mina seytaan rajim salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu mbokki jullit yi di nuyu sëriñ Abdou mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Mourtala Fall ak ci ndigalal mboolem ñi mu àndal liggéey bi mu njabootu Cheikh Mourtala ak waa kër sëriñ Baari Ndiaye di siyaare mbokki taalibe yi nga xam ne liggéey bi lépp bu bu sottee ñoo ko sottal ànd ko kilifa yi nga xamal ne moom liggéey bi moom mboolem sët sëñ mortaal yi ñu ngi ko fas yéene ànd ak sëñ Abdou nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mortaal Fall bu dee ci wàllug sët yi moom sëñ Cheikh ko sëñ Baye Serigne Mbacke Ndiaye waxee rek moo ci sëti Cheikh Mortaal Fall yi nekk ci kanam jiite liggéey bi ñu nekk ci gannaawam sëriñ Aliou Fall xam ne moo fi nekkal sëriñ Bassirou Fall it bokk ci biir njaboot gi doon xalifa sëriñ Basirou Fall waaye daal bokk bokkaat ci biir sët yi muy mi ngi ci biir liggéey bi ak sëñ Aliou Fall mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Abdou Aziz Fall ak sëriñ Lamb Fall mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Basirou Fall Xadim Mbodj daa mel ne sëñ sëñ Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi di jëwriñu kër sëñ Baara Ndiaye daa mel ne eh, kàddu yooyu mu yëkkati woon leeral leeralaale na seeni tur ñoom ñoo ñoo xam ne ñoo ànd ak sëñ bi liggéey bi liggéey bi nag moom niñ ko baaxoo defee rek noonu lañ ko tàmbalee bu weer wi teroo ñu séenu ko fas yéene dajale suñu liggéey indil ko ko fi nekkal sëriñ Mor Talla Fall euh, ci jëwriñu sëriñ Mbacke Ndiaye mooy njëkk indi ab liggéeyam buñ demee ba ca fukki fan yi waa kër sëriñ Abdou Aziz Fall ñëw indi seen ab liggéey ñu toppee ko noonu ba weer wi jeex ànd ko mboole mbokki taaliba yi kenn ku ne fas yéene laxasaayu takk sa ndigg fas yéene jëmale liggéey bi kanam bëgguñ dara loo xam ne nii liggéey bi da dana ci sooxe wala mu wala mu soofe ci wala mu deltu ci gannaaw foofu ko suñ kilifa yi bàyyi woon daal dañ koo sëñ bi fi nekkal Cheikh Mortale muy sëñ Abdou Rokhaya da koo jëmale kanam waaye wàññiwu ci dara xanaa kay liñ koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam tubéral ay cëram rek loolu lañ koy ñaanal waaye liggéey bi moom fii ma ko yóbbu ànd ko mbokki taaliba yëpp moom kawe na jort yëpp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 laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah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 mbokk yi kon euh, jërë ngeen jëf lii leen leen jëlaloon fële nga xam ne mooy euh, kër Serigne Mor Talla Fall euh, di siyaar bu baax tey ñaanalaat rek bu baax Serigne Abdou Fall Rokhaya moom Serigne mortala Talla dégg ngeen kàddu yi nga xam ne e, jibe na fa ci kàddu yi nga xamante ni moo jóge ci Serigne bi waaye gis ngeen tamit liggéey bi ni leen ko toppalee ba fii nga xamante ni mooy e, ci jumaa ji fii nga xamante ni mooy résidence dégg ngeen kuréelu xaside yi. waaye baay Fall yaa ngi noonu kenn ku nekk di indi sa liggéey ci kër sëriñ bi mel na ne euh, yoon wi euh, lii rek la yoonu Baye Fall muy jëf euh, weeru koor Baye Fall bu nekk rek warteef la ci yow ngir nga joxe ndogu na ko maam Serigne Fall Babou Mouridina daan defee waaye nag duñ jug di leen toppal yi durant weeru koor gi di jeex kër gu nekk ak buntu kër gu nekk dinañ fa fas dugg génneel leen la fay dukkee ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal maam Serigne Fall di santaat bu baax a baax. Euh, suñu mbokk euh, euh, suñu mbokk caméraman yi ñu àndal di siyaar baax a baax si liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci weeru koor gi di leen bu baax a baax kon noonu la ñu dem ak sëñ bi bàyyi leen ak sëñ bi li stajib daawati bi maa faaxa seen yi wa bi maa faaxa rabbi la sununi barki maam Sëriñ Fall